maire yeeg paar yi xam nga duñu manifester. dëgg la duñ génn def dara. dëgg la est-ce que du vote bi lañ amoon comme moyen. pour wane seen bopp. naturellement et puis bëgg nañu wax wax seen doom ne leen beneen yoon bu ñu diw di def lu ko neex jarul ngeen ci génn ñu leen di rey nañ dem nañ dem nañ dem vote rek parce que léegi sénégalais moo xam rôle carte bi et nit ñi dañ fi nekk di désinformer di désinformer di wax di wax di wax di wax mais. li ñu wax dafa gis na am na benn journal bu bind. Amadou passe au premier tour. gis naa beneen journal bu bind Amadou Ba amène euh, Bassirou Diomaye au second tour mais loolu politiquement boobu bëgg la ñu wax ci tuuti pour la première fois. <laughs> Eh. dans l'histoire politique. Eh. man may gis eh. un parti au pouvoir qui xëccoo ne woon day dem deuxième tour <laughs> xam nga loolu. man dama doon gis ne opposition ñoo doon wax ne deuxième tour day am. par exemple Macky Sall avec Abdoulaye Wade mais pour la première fois man ma gis un parti au pouvoir son candidat di wax la non dañuy dem deuxième tour. mais xam nga xam nga. Euh, élection yi loolu moo ci gën neex. <laughs> E-, élection yi da dem ba euh, pouvoir dem dem opposition opposition bi dem pouvoir. <laughs> ci biir ci bir campagne bi da ngay toog ba si gis légui candidat pouvoir lañu attaquer attaqué. Mm-hmm. mais léegi <laughs> la ñëpp doon attaqué. waaw parce que en réalité kuy kuy geussu xam nga ni il avait la chose. Mm-hmm maintenant après nous commencé sous couvert Sonko qui nekk ci Sonko et la dernière semaine il euh, la régler régler problème parce que xëy na première semaine ne na bu baax ci sondage. Mhm. mais ba mu parce que les gens voulaient dañoo bëggoon xam mais pas ko le ne mu déroulé deux trois quatre jours la mu en plus sénégalais dañ naan du chef de parti. contingence yi yi tënk chef de parti du ko tënk. deuxièmement Diomaye ba muy dugg prison xamul woon ni candidat lay doon. ba mu génnee jot fee wax bu dee papaam démb lay soog a gis papaam mooy jot fee waxtaan ak kenn. donc day xaw a euh, pur. du am du am maanaam. dara lu ko tënk lu ko tënk. c'est loolu dafa neex président boo xam ñoo ko fal. ñoo ko fal en fait c'est le peuple qui a choisi. moom mu am yépp mook sénégalais yi. Sénégal mook sénégalais kenn dara leneen lu mu fi indi nag. mook sénégalais mook sénégalais ñoo koy jëflante. c'est-à-dire loolu dafa ci sénégalais parce que et puis nga fal président boo xamante ni <coughs> bu defee ay mandat ba jeexal <coughs> njagañaaw lay ñibbi. ndax jàngewu ci réew tubaab yi bay naan am na fa kër rek. <laughs> <laughs> waaw amul xam nga ñun dañoo tam muy euh, président yu ñu am yépp mm-hmm. xëy na. seni kër amone jangé nañu France ba yag fa am fa kër wala am fa soxna wala yu démé ah. non mais bi mom mom moom ñaw lay ñibi après. mom soxna nañ dëkk njagañaaw ñaw moko dàqaloon dëkk Dakar. à part de ce moment donc lobby yu ngand yoy nga xamanteni dañ dan titel xamuñu dëgg la xamuñu du dëgg waaw gaay yi am na ñu nekk seen ginnaaw ay franc-maçon hmm. affaire ngand yoy légui mom bi mom bi mom mom leer na mom ñoko mom ñoko ñoo ko fal ñoko fal quoi lu mu def mom mom mom moom mok sénégalais mok sénégalais